lu mu permettre woon Sénégalais ci paralam tenir na ko donc Sénégal fu mu nekk nii libéré nañu te aussi jël nañu ko ko njukkal moo tax nag ñun dañ koy ñaanal ak ñi nga xam ne aussi ci benn bokk yaakaar bu mu jógee ba tey ñu ngi ànd ak moom depuis 2012 ñu accompagner ko ba yàlla def mu def ñaari mandat am ci jàmm ñaari mandat am ci salaam mu bay na réew mi tamit ci salaam. ci dal ak ak tey donc ñu ngi ñaan nag prochain président mu nekk ci benn Bokk Yaakaar loolu loolu ñu recommandé bu buñ ko àndee noonu dañ koy demaale aussi fal euh, ci benn Bokk Yaakaar ci ñu tour